waaw si dañu fee teew tey ci njiitul Mawahibou Akyas muy ci turu sëñ Saliou Mbacke moom sëñ El Hadj Baara ab liggéey boo xam ne dañoo àndoon dañuy ànd def chaque année ñu ànd di ko liggéeyal sëñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ba mu egsi fii jii daaw ñoo ñu defoon ko mbana yeeg satala yeeg mboolem jumtuwaay loo xam dañu am ci daara lu mel ni xeetu mbana xeetu madla ay kaamil alxuraanul karim dañu am dañ ci am mbég betteel ndax tey la sëñ bi woote nii daal bisimilah mën ko fekk ci ci këram gi ci Touba Darou Khoudoss. donc social lañuy dox ci wàllu gépp waaye li liggéeyal sëñ ci wàll loo xam ne si daal li sëñ Sall doon wax ne jëf jàll na ko borom xeeb ko waaye daal xeeb nañ ko lool lool wala lancé di sàkk ngeen ñaan lu baax rek ba lépp loo xam si. sëriñ bi sumb na ko ñu ànd ko ci ak moom ci njiitul maahi wala kayaas. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. man la Saliou Mbacke moom El Hadj Baara moom Cheikh Modou Fadal di njiitul mahabul akiyaas muy mbooloo moo xam ne mooy ndaw ñi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ak li ko wër ak ci biir réew mi ak bitim réew. taxaw ngir liggéeyal Serigne Touba. tey jii it ñoo nit ñi ci dajale ay jumtukaay ay bagages yoo xam ne dafa jëm ci xel koom jëm ci dongo yi. yàlla def ñu wuy suñu ci nag ñu leen ci sant bu baax te di leen ci gërëm lii am tey nag tawféex dëgg la ndax ku toll jëmm ji nga xam ne ci la ñu jógee jébbal ko addi yi ñu ko jébbal mu wax ci wax yi mu ci wax war nañoo sant yàlla bu baax ndax wax na ne day jumtukaay lu mel ne laa yeeg basang yi ngeen ma indil de fekkoon na ma naran koo fàggu ji ngir ngir daara ju ma doon liggéey mu doog a egg ma war koo sanj loolu nag dafa lu muy tekki addiye boo ko dee jox sab sëriñ fekk sëriñ bi am ci yitte nag di taxaw di la nekk kon wér na na da koy jëfandikoo. kon ñu ci sant yàlla bu baax laajo laajoon nañ ko wuyusi nañ jébbale nañ ko mi ngi nii li ñu def nag mooy ni sëtub Seex bi taxawee li ñu leen xam mooy bu ñu leen joxee ndigal ñu jëf ko ba noppi dañuy bëgg balaa ñu fa jógee ñu joxal leen ndigal loolu la xam ci kër Seex Ibra te damay faral di wax ne képp ku bëgg a bëgg Sëriñ Tuubaa da nga roy Seex Ibra ci sëñ Modou Moustapha laa koy tàmbalee nag ku royut Cheikh Ibrahima doo jëriñ Serigne Touba kon nag nañ ndigal jox na nañu takk taxawaat du mën a sax jëm déwén buñ ko mënee indiwaat suba sax nañ ko indi ndax addiya mook jaamu yàlla ñooyam kenn du na julli woon naa démb du ma julli tey kenn du na lekkoon naa démb du ma lekk tey addiya ak jaamu yàlla ak ak ak xéewlu ñooyam loo ci def tey bu subaa da koy bëgg a defaat kon nañu taxaw fas ndigg yi góorgóorlu dajalewaat addi indiwaat ko ñun ñun liggéeyal sëñ bi rek lañuy def te kuy liggéey sëñ bi wax nga lislaam ndax lislaam suñu demee ba di ko tudd ci Afrique sëriñ tubaatax tax ñun ci daara yëpp la ñuy yëngu donte yëmuñu sax ci daara yi waaye fes nañu yéenee dem ci école yi bii mooy ñaari yoon bii mooy daaw yóbboon nañ ko poroxaan ndax sëriñ bi nee na fu ma leen waxoon ngeen yóbbu ngeen yóbbu ko fa waaye dama bëgg barke bi nekk poroxaan ñu bokk moo tax mënoon nañ ko indil poroxaan tey jii am na am na yeneen yitte waaye dañoo néggandiku ci mbaaxam ak ak bëggam lu baax rek ak ak bëgg bëgg loo xam te ni suñu coono dana gën a wàññeeku moo tax mu mu nekk nu fii waaye bu nu wowoon tool yi gën a sori ci ay tool yi ñu yóbbu ko ndax nun ak bagage yi ñoo bokk borom alali Serigne Touba lañu Serigne Touba la ñuy liggéeyal Serigne Touba moonu moom moom lu nekk sunu sunu sunu poos ndax olof dafay wax ne képp ku la taalal ba ci soxlaa ak gëlét nga war koo jox ku la jox sa mat ba ci soxlaa benn mat war nga ko delloo lu ñu am Serigne Touba ñu ko jox.